mi yá fún mi. Zibudum bijowa wayo dejim na dugum. asalaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi déglu seen chronique de la semaine avec Seydina Seck si xalima SN point com liir du fen bu xiifee jooy te raxas bu ëpp kat dafay fëq napp suñu kilifa diine yi ñu jiitu ku leen fëggoon fu ñu tëdd tey ne leen bii Sénégal ngeen fi bàyyi woon ñu kitaabu ne du bii ndax ana kersa bu ñu fi bàyyi woon ana sutura ana fulla ana fayda ana jom ana ndimbalante sa digganteek sa moromu jullit rawatina teraanga bu ñuy dippee dem sax ba ñaan Sénégal réewu teraanga ñu nekkoon ay valeur yu am solo ñëpp respecté woon ñi si ba ci bitim réew tey nag loolu lépp ndax na saay ndax ci ay jikko yu bon ñeme puukare ñeme gis leen ma ndax fu askan bi di sonnee ñii bu ñu añee du ñu reer ñii bu ñuy tëddee ñi ngi xalaat lu ñuy jox seen njaboot suba ëllëg lu ñuy ndékkee si beneen wàll ba ñii ñuy tuddee ay jet setteurs wala jet setteuses nekk ci biir boîte de nuit rawatina sax lu xewoon grand théâtre bërki démb di fa toroxal xaalis te kenn du xam fu ñu koy liggéeyee moo jaaxal ñëpp seen am-am jéggi na mu jot nag waa CREI cour de répression de l'enrichissement illicite jug wax si bu fekkee am alal bu lewul moo leen tax a jóg wala bu ñu njort ni lewul ndax gannaaw ba da ngeen a bëgg liggéey rek liggéeyee ngi nii taxaw di leen xaar ndax kat alal ku ko liggéey ñàq ko sonn si doo ko fowee nii wala sax toroxal la ñuy wax te réew bu joxul cër alal du jóg si ndóol moo taxit lu muy jur insécurité viol agression vol rek lay jur ndax ku amul lu mu lekk di seetaan télé télé bi gis ñu fay toroxal xaalis sa xol de daal di fees sa xol de daal di jóg mu jot nag état jël ay responsabilité am ak télévision yi mel ni suñu directeur de programme yi seen mënin daf leen a réer ndax ñoom rek ñooy encourager population yi si yaafus di leen gëmloo ni war nañu mën am alal te duñu sonn maanaam teg ko ci ay jeu loterie yi loolu rek la suñu télévision yi nekkeek ñun jamono jii télé boo fi ubbi du jeexal émission am te neew la yónneel 26 0 26 wala 26 nangam nangam wala sax xoosal wala ngoos ngoosal lu yombul lool te waroon dëkk si di leeral xelu askan wi waaye lëndëmal xelu askan wi ngeen ni gën a def maanaam désinformé mu jot nag askan wi gëm ni dóor waar rek moo am solo ñàq jariñu liggéey tedd teral say waajur te yéwén ci loo moom gaañi maa